tey tey yàgg ngeen dégg li jëm ci mbirum Fouta ñu naan lan Fouta wàllum politique ñi koy ñi koy pàccarloo di ko yóbbu ci foo xamante ne bokk fa fuuta ci Sénégal la bokk ci réew mi la bokk lenn moo ñu mus a ñor lenn moo ñu mus soxal bañ ñu xamee ba tey de la révolution doorado de Thierno Souleymane Bal ba tey jii nii ñun fépp fu Sénégal yegg fépp fu xeex ñun bokk nañ ci te loolu lañ xam loolu lañ bëgg xamuñu pàccoo xamuñu parparloo lenn lañu ñu xam mooy Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar li am des mooy yëg ngeen li nekk si réew mi muy mbas mi nga xamante ne ñëpp a ngi koy coow tëj nañu Sénégalais yi lor nañu leen tere nañ leen lépp tey ñoo ñee ñoo jël seen i mbooloo yóbbu leen ca Fuuta ñaan autorité politique li ko jëlee ministre DG député ñoom ñëpp ñu dajalee ci koppoor lu mel ni 120 millions naan dañuy dem defi méga politique Fuuta méga meeting boobu noonu lan la nee nañ Macky Sall dafa wir ci xeexam fii nii waa kon ñoom yi dañuy dellu ca Fuuta jàppale ko ca xeex ba waaye yéen xanaa Fuuta bokkul ci Sénégal xanaa ñi fi doon marché ak ñi fi doon manifester ndaw Fuuta yi bokk ñu si ñun ñi ngi partout ñoo ci bokk ñoo ci def lépp Macky bu wéetee ñoom la seen ñàkk liggéey seen ñàkk xarañ ah ak seen ñàkk taxaw mooy waa Fuuta moo leen liggéey ah loolu amul lenn loo xamante ne ñun Fuuta am nañ ko fa du l'hôpital bu baax du yoon bu baax du loo xamante ni lii mun nañ ko jëriñu keroog ñu ngi génne lu toll ci koppar 54 milliards ñu ne lan dañuy jàppale mbay ma ngor yee ca mbay ma waaye yéen fuuta moom ku neen fuuta naan naan suuf su bëri fuuta mu ngi naan yambalal bëri suuf àll baa ngi noonu waaw ku naan fuuta tamit naan dex wa ndox kay du fa jeex ba ak ñu ñuy am kii nii naan daane maayo bi ñëpp lu ngi koy dégg mooy vallée du fleuve bi foofu mbay fa la fekk baax mbay foofu la yéen lool waaye déet dañ cee teggi fuuta ndax lan seen ko euh, kàllaama yi nga xamante ne tàmm nañ ko di ko naxee réew mi naan yaakaar ni foofu noonu am na lépp def nañ fa lépp amuñu dara amuñu dara na Sénégal gi xam nañu ñi xam ni nit ñi di woote foofu sa ñun amu fa te du fa dara amuñu lenn loo xamante ni lii nii luy njëriñ la askan si ndaw lii la ndaw fuutee pami foofu noonu tëdd kenn xëyut kenn amul kenn amul gont yaakaar naa ne lii nii ñun ñoo si gën a yeeyoo ah, lépp li nga xamante ne joxoon nañ naan dañuy jox dimbali réew mi xam na ni ñun tamit bokk nañ ci tey yeyoon nañ ko waaye seen ñàkk xarañ moo leen yóbbee lii ba nga xamante ne tey jii nii naan dañuy dem Fuuta di woote ab meeting meeting ngir la ak fu réew mi toll ak fu réew mi toll as war na taxaw naan da ngay meeting ak feebar gi ni ñu koy coowee keroog bu Fuuta corona dugg na fa lan lañ wax hôpital Fuuta de Fuuta amul benn hôpital boo xamante ne mun na tëral aw malade corona

kenn gisu ko du du kilifteef du responsabilité nit nag bu la fa nit tegee fenn naan toogal ma fi jiital ma fi dangaa war a wone loo xamante ne lu rafet la dangaa war a wone dëgg gi ba moom ëllëg si biir bu gisee yi ko mel nii ay doxalin noonu du am lu ko bett waaye lii na xam ne dara amu fa te li ñu woote noonu noonu du lenn lu dul lan dañoo am xaalis boo xam ne dañ koy cotiser bëggoon ko fa yóbbu waaye ngal na tey gis ngeen xam naa bi mu jógee dëkk bu ne leader bu ne gis ngeen lu mu taxawoo dëkkam jël nañ ay saaku ceeb ay diw lañ dem nañu tamit jënd ay matériel médical ko ci hôpital waaye yéen laay jël yéen journaliste journaliste Sénégal yëpp national comme international di ci Sénégal ci bitim réew na ma kenn seedal na ma kenn indi preuve wala gis vidéo boo xamante ne ab leaderu Fuuta wala kilifay Fuuta gis nga ko mu dem Fuuta yóbbu fa lu doy alal wala mu yóbbu fa ndimbal mu yóbbu fa dara ci hôpital yi defuñu ko amuñu ko parce que taluñu Fuuta ñoom ñi ngi foofu méga te waruñu Dakar am nañu seen i passeport diplomatique am nañu seen hôtel yi naan yambalang fi bu ñu paree dañuy dem faju ji fu baax kon nañu bàyyi ñun Fuuta boo xamante ne asut ñu yore muy suñu jàmm ji asut gu ñu yore muy ko amee ko bàyyi a tax nañu béy suñu wajur nekk dañ koy ñaaw di ko naqaru ba mu naqar yem te ñu ngi leen di seedeel tamit yéen ñëpp ñi nga xamante ne teewe nañu ñi ngi média yi ak lépp nañ leen xamal ne adduna bi yëpp ni Fuuta googu noonu ñu fay woote dara amu fa lépp luñ fa mun a woote ay nar la ak yi kàcc waaw sàllaan loolu lañ leen bëggoon wax waaw. Merci. Pour la satisfaction. Vite fait.